te kurfañ moo moo de tax mu perturbé man sportivement laay wax ko dañ ko teg fële. bi dama gis lu yi jël fan yi concentré wu lool ci gàllaaj ba defa nga ne li nga manqué woon ci état li nga manqué woon ci li nga war a liggéey gàllaaj war na koo remplacer. est-ce que loolu loolu xel na mën a ko temps wala daan wax gàllaaj troisième position wala quatrième position la. père waaw gàllaaj hmm? daanul kenn. musuma gis mbër bu ñëw taxaw ñu ñu mu daanu waaw li ma waa li lii dëgg li war jaal tey bu doon bëreeg Modou sëriñ boo ne tànnal ko ci ñaanal tay man boo ma joxee Balla Gaye wala Bombardier aw ma fu ma koy jaar ak sëriñ boo mën a ngemb nag ndax damaa ëpp doole sut ma ëpp ma dàq ma bëre dañu waxante dëgg yàlla tax nit nit boo ne dem nga entraînement galaaj daanul kenn ndax sax jour nga gis mbër bu ñëw indi indi cinquante saako indi indi cumukaay bu amul fenn def une heure de temps préparation mystique ñu duma ko daan ko mu ñibbi te fépp fu mu demoon di ñaanlu amoon na fa yaakaar en tout cas li ñuy def ci gàllaaj bu ñu ko doon ci biir di ko jox promoteur yi moom ëppal njëriñ man wala ñu def ko seen bopp tey demoon euh, États-Unis seen seen kii fa gën a ay ci basket LeBron James nee na chaque année day jël deux millions de dollars maanaam un milliard nangam daf ko ci yaramam wut ay coach yu koy encadré ay nutritionniste ñu koy wax lu mu lekk léppam da ko teg ci yoon investir ci yaramam moo gën investir ci ay sëriñ sëriñ muslaa ngay wut rek ndax ca tak làmmiñ sumee ko bëti a gis ak wax ci bëri ci sa tur gi waaye lu weesu loolu sama xalaat bu gàtt man ci li ma jàngat ci làmb sëriñ daanul kenn ci làmb euh, noo gisee loolu xale yi concentré wu rek ci gàllaaj dangay toog rek mel ni robot ñu lay sotti mbër daana sotte ko ñaari biteel waaxu ñu bëri ca géew ba mais booy defatuñ loolu ba moo waral CNG jël mesure yu bees. wax nañ dëgg man d' accord d' naa ci man a tas. ma jox la ci ñaari anecdote naa ci. école police laa jógee may jël benn tournoi. Mhm. liñ defar yëpp école bi xoolal fa lañ mhm. <laughs> koy sa mel ma ma seex rek ku ma war a bëri mu ñëw def la ko nii école police dañ ko daggee sëriñ joxuñu ko mais da nga naan mystique la. dañuy dox sama yenn. c'est psychologique. xoolal xoolal père xoolal Balla Gaye bombardier. Hmm. morceau bi bombardier lal dafa yàqu man pour man moo yàqu combat Balla Gaye ndax ñemewul koo jéggi calcul bi bëri na trop ci jéggi morceau boobu ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal loolu bokk na ci lu ko perturbé. mais arène ba de man jël lañ fa ay gàllaaj jox ma ko ma xotti ko gis fa ay calendrier. ay calendrier moom gis nañ ko am na gis kii ci ay ay bind français ree damaa jàpp sax man ñii lañ def loo booy mais yow mbër na ne promoteur day fay ay millions au lieu nga jënd ko ay billets jox sa supporter suñu mobiliser may la doole man pour man sax supporter li may mën apporter sax sëñ bi la ko apporter supporter dana yuuxu sax may la fit mhm. mais ay calendrier ay ay bi yiñ bindi karo ay karo laa ci gis ak ay chiffres. loolu mais loolu. Mhm. mënul dal kenn. dañu ñëw rek ci Alboury nag jar na bàyyi xel dañ ko teg comédien mais gis naa mi ngi jeexal xale yi. te daa mën a xeex mën a bëri. mu ngi neexal làmb ci daal en tout cas. te saf na xorom. waaw ah, saf na xorom mën naa bëri si yaakaaram day ah, neex. Alboury daal Alboury daal jar a bàyyi xel nag. buñ ko ak ah. taay bu mu am. ndax bi muy eh, gaa yi dañoo bàyyi xel mais diggam ak euh, COPAC bii paase. Mm-hmm. saa deng leer. la ko boo yëpp bàyyi ndax poids lourd bu mën a bëri la. te da koo bëriloo ba mu dee daan ko. Mm-hmm. te nee naa kon nee naa noonu su ma la jàppee nga xam ne ne man maa ñàkk fayda di xeex ak kenn nit. Mm-hmm. mais nee na sama maam boo ko mosaan toj day bàyyi ba ngeen ko fokk dëgg la mosoo day su daanee day taxaw ne nañ duma ndënd yi mu taxaw fa fecc mm-hmm. na ko mbëri bàyyi dëgg la naanaan la mais démb am saf na xorom leen ci xel uh-huh. démb am na lu mu def lu bëri bàyyi ci xel moo sut booy bi te booy bi suuf rek la ko mën a jaar ba mu ko yàkkamtee ba booy bi ñëw ba mu mbaar ko forcé wul action te boo xoolee jour def na ko ñaari yoon génn ça veut dire que bu démb doonoon cuune démb bu forcé rek boobu da koy bët mais li muy bëri yëpp ma ngay solo pare te day dóor la muy dóor da ko assuré la muy dóor di bàyyil booy def dem ba muy génn ba mën a bëree la te dara jotu ko ba muy génn këram de li ko dar ci mbooloo góor la de sam yàqoogul de <laughs> na jàng ba muy ba muy ba muy génn këram de vidéo ma gis démb hmm. mbooloo bi ko dar day mel ni mbooloo buy dara grand amateur waaw day mel ni xam nga ñooñu mu dëkkal di ay fan sam mm-hmm. mais am na amateur yoo xam ne programme bu ñu gis Alboury mm-hmm. dañ naan naa dem seet naa dem làmb dafa remplacé ñu muli tuuti waaw waaw parce que moom dafa saf xorom mën a bëre mën a xeex voilà ko bàyyi xel bu ñu saf ko du de mm-hmm. mbër la mbër la kafut de mën naa bëre mën naa xeex saf na xorom kuy bëre moom na ko bàyyi xel ndax taay ba te amul pression amul pression dëgg la pression. ku neex la moom. Euh, léegi nag fi euh, ñuy euh, tàggoo ci combat guy gi ndax danañ wax tax sax ci Ama Baldé duma ma daje ndaanaan yu mel ni yéen. <laughs> danañ wax ci bés boobu ñëpp di ko xaar. ëllëgu guy gi ëllëgu Reug Reug. nag fu mu toll nii moom. Mhm. ku ko jëlul danga koo ragal. <laughs> Ah, amul roi des arènes. Mhm. amul bombardier amul Balla Gaye amul Sa Thiès ak ndéem nag ñu ngi coow diggante ak Sa Thiès. kooku mooy combat bu jaadu bi. xam naa ne daal avant Sa Thiès di bëre ak Moussa am na promoteur bu ci nekkoon. Mm-hmm. ndax waa Leewtoo doon nañ dox Sa Thiès. ak Garga. Mm-hmm. ba jiboo ci prix. diggante bi sottiwul. ñoom ñu tëgg Tafatine ak Boy Niang. Mhm. ñaari combat yëpp lañ doon taxawal. ba woon mhm. baabu sax waxtaan ba war a joxe avance. Mhm. beneen promoteur bi avance yi yéexee génn mu dox saa Thiès calis na ko man xëccoowu ma. bu ma gisee keneen ku ngeen ku ko bëgg saa Thiès suma rakk la. man na bëre ñooñ ba pare bëreel ma. ñooña dox ko maam ak garga mu jul sotti ñu dox ma Moussa Ndoye Fallou doon na dox rëg-rëg. ak Sa Thiès am na yeneen promoteur yi doon ndox Reug Reug montant yi bëgguma ci woon a wax mais nee na leen woon bu dee Sa Thiès bu dee Reug Reug bu ngeen ma joxee nangam ma bëreeg moom bu dee garga bu bu ngeen Moussa Ndoye bu ngeen ma joxee nangam bëgguma tudd prix yi mm-hmm. kon combat boo xamante ni même avant muy daan guy gi Sa Thiès bi ak Reug Reug doon nañ ci wax Reug Reug Reug Reug foofu teg bëtam nag bu ko waxee bu ko waxul per match waaw Jumbo wax damay wax waaw léegi la fi guddi uh-huh. ko jël da nga ko war a ragal mm-hmm. doo ne deful palmarès bu baax dama damay bañ jaaj jaam ji matt tafaatin mat ko mm-hmm. parce que nan ci waxaan ah. mm-hmm. dañoo war a bëri moom tafaatin mënul ne ci làmb ji mënul ci làmb ji du koy teggi Modou Lo Modou loo bëriwul ak moom nangu nangu woo Eumeu Sène Eumeu Sène bëriwul ak moom dëgg la Gris Bordeaux bëriwul ak moom mais mooy la ah Tapha Tine mënul ci ba pare adversaire yi muy bëreeg moom ñoom dañuy bëreeg ñooñu. Mhm. te nangu ñoo bëreeg Tapha Tine. dañ koy bàyyi xel rek wax yëpp loolu. ragal la rek. nañ ko dañ ko ñëwee bëreeg moom pour man sport de combat amul mooy tante nañ wax li fi nekk mbër la comme mbër yi day entraîné bi dafay palmarès Reug Reug mii kan moo ko gën palmarès actuellement.

non boobu nag foofu moom boo ma leen laa gis le seul mbër bu nekk Sénégal kooku ne kaay ma bëre. non moom amul problème adversaire boobu aussi ñu koy remercier ko félicité ci côté boobu parce que loolu sportif te li ñuy def ni day tëj làmba. Ah. parce que communautaire yi bëreetul. tey tey boo xoolee rek logiquement takk ñu ne la guy koo koy jox di réfléchir mhm. dootul automatique ñu ne nga tey rek rek gaa yi nga la Sa Thiès gars yi na la Modou Lo na la Bombardier na la Balla duñ bàyyi kenn mais tey boo ne tag guy gi di nga taxaw xool xalaat ci sa xel ba nga deux minutes xool kan nga ko war a mun a booleel parce que compétition dafa tëju Ama Baldé looloo loolu looloo ko dal benn instant doo bëreeg Balla Gaye doo bëreeg Sa Thiès doo bëreeg Lac de Guiers doo bëreeg Eumeu Sène doo bëreeg Boy Niang nga sa cercle adversaire tafaatin bi ngeen bëri yàggul heure may revanche jotagul kan ngay bëreeg te li Paala Diop miy ménager Reug Reug daf ne gaal gi. Mhm. gaalu Reug Reug gi day teg na ko buntu Géejawaay. Mhm. ban jàngat nga am ci loolu. bu ko tegee nag dafa wax lu logique. parce que ba pare ñu ne <laughs> loo bëgg a wax mu ne ñi may wax ak ñi may wét xam nañ seen bopp. waaw eh waaw nee na ah. li Jimboo eh. wax ñëpp ko laay wax. Mm-hmm. combat inévitable la. Sa Thiès du bëreeg Lac de Guiers du bëreeg Ama Balde. Euh, du bëre ak Boy Niang parce que da ko daan baki démb du bëre ak Balla Gaye kan moo ko dese te moom moo mënul nekk parce que am maa ngi fa kan moo ko fi dese.